lu soxna maam Isa di wax moom la koy wax loo kon bu teewee fii ci jotaay bi yoon la nu jox ko sunu micro mu dégtal nu ay kàddu rek aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah rabbi israh li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wali barik fi jamil arakaat wa shakanaat waj alalha barakaat waj al bi jaahil mustafa aadaati takaruman ka amali saadaati salli bi taslimin ala man faaxa fi xalqihi wa xulqihi tifaaxa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ñaanal Cheikh Mamadul Muntaxa mi nekk ci bopp yoon wi suñu boroom guddal aw fanam te wéral ay cëram ba li mu yéenee liggéeyal Cheikhul Xadim lépp mu def ko ni mu ko bëggee te ñu ànd kook moom di ko ñaanal sëriñ Amdi Moodu Mbend Fall mi nekk ci bopp njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridin di ko ñaanal taalibe yépp di nuyu nag waa karawaan ma yomba ñi nga xam ne ñoo organisé ngont mi tey ba noppi tuddee ko soxna maam Issa Mbacke ahlu kafe bintu sëriñ moodu Fati Xari sëñ Modou Fati Xari ibnu ma Mazamba mu ànd ak délégation bu mag teew fii ngir jëmmal jotaay bi ak wuyu tur wi délégation bi lim nañ leen léegi euh, xam naa sax tudd ñëpp waaye ñi ñu tudd rek mën nañu yóbbaale ñu des ndax bu ñu tuddee soxna na bu Mbàkke mi nga xam ne jokkoom sax ak waa kuréel gi ci moom la jaar moom sañ xaasim sëñ xaasim ku ne xam na ko ci yoon wi moom sëñ Abibu ak soxna maam Jaara Mbàkke moom itam muy rakk ci soxna si di àndandoom ci lépp nag ak sunu yaay yu baax yi nga xam ne fépp fu soxna maam isa jëm rek ñoom ñoo koy taaral ànd ak moom ndax ay àndandoo daa baax kafaani afishun maanihun jumlatal ida wali xaada ahbaban bihim uskinu nuska kon kenn ku nekk say àndandoo ñoo lay wane kon nag sëriñ xaasim ak mboolem ñi bokk ci karawaan bi yépp euh, sëñ imaam Masayer Fall suñu tuddee imaam rek tudd nañ ñi topp ci moom ñépp soxna si nee na mi ngi bég lool di am kontante ak xel mu dal ci lii nga xam ne dangeen ngeen ko koo jagleel te muy yëfi sëriñ Touba. ngeen xam ne dafa am sëriñ ci sëñ tubaa cër ngeen jox ko cër bi te jëmmi sëñ tubaa rek tax nee na xolam sedd na ci lool njortam tam kawe na ci bég na ci bu baax waaye tam mbooleem soppeem yi mu àndal ba ci gone kafe gi ñoom itam bég nañ ci bu baax a baax a baax ndax olof yi sax dañuy wax ne ku la tudde doom boole na la ci boppam kon tam koo xam ne day def mbirum sëriñ tubaa jox la ci ab cër kooke bàyyi na la xel bu baax a baax a baax kon ci turu soxna si ñu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp di nuyu itam jàngkati xaside yi nga xam ne damay wax toujours ne njàngum xasida bu nu ko tàmbalee ci sëriñ bi bind xasida yi sëñ Masamba rek lañ ci mën a teg moom la ko doon maasloo daanaka ko dencloo daanaka ko yëkkatiloo ba njàng yu bari ci njàng yi mu ngi sosoo ci njàngum sëñ Masamba wala ñi ànd ak sëñ Masamba kon nag day mel ni jàngkati xasida yépp ñoom ci biir liggéeyub sëñ Masamba rek lañu nekk kon nag fu fi waay di yëkkati xasida rek soxna si day jàpp ne yaa ngi ci biir liggéeyub maamam ba loola ngay def moom nga koy defal kon ñu ngi sant jàngkati xasida yépp sëñ Ilimane njàng mi neex na te pësteefu na sëñ bolle ñu ngi leen di ziar sëñ jiili ñu fi teew ñëpp di jàng di de wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di nuyu itam sëñ yi sekk moom ku baax la koo xam ne maag moom dañoo dëkk lu yàgg ma xam ko bu baax ci pësteef moom ci pësteef rek laa ko mas a xam pësteef boobee itam waxtu ne day gën a yokku rek ba tax liggéey bi itam biñ ko jëlee teg ko ci loxoom ngir mu man koo yaatal ci jànkati xaside yi mu def ci wax dëgg yàlla lu taw féexe ndax dégg ngeen li sëñ ilimaan wax léegi di ñaanal tam sëñ xaasim sanc bi yal na ko yàlla seral guyu def fi tam xéwal yu bari yoo xam ne danañ gën a mën a jekku liggéeyub seexul xadim bi di nuyu itam sëñ mortaale kan mi nga xam ne dañu ànd ak moom ak suñu rakk sëñ asan ak ñoom sëñ daam kafe ñuy àndal ñëpp ñëw fii sëñ Omar yéen ñëpp daal ñu ngi leen di ziar sañ suukar ñëpp rek bàyyiwuñ kenn sëñ Cheikh Mbeng mi nga xam ne ubbi nañu jotaay bi xamal nu lan mooy Caravane Ma Yomba objectif bi xam nañ ko leer na bu baax baax kon ñu ngi sant baax di gërëm ñëpp rek ci turu soxna si di bég bu baax di xam ne mbooloo mi daal soxna si nee na nañu xam ne ahlu kafe yëpp ñu ngi ci biir mbooloo mi ndax fédération ahlu kafe ñoom lii seenu liggéey mooy fu nuy toggale sëñ tubaa rek ñu fexe ba ñu roof ak matt goo xam ne dana tax taal bi gën a boy loolu mooy taxawaayu ahlu kafe liggéey sëriñ tubaa rek mooy yëngu-yëngu yi te mooy dal gi kon nag su ngeen jëlee soxna si xam pëstéefam xam taxawaayam xam ak dogoom ci sëriñ tubaa ngeen boole ko ci liggéey bii ba pare boole ko ci jëwriñ yi jiital ko duñu mën a def lu may sant leen bu baax a baax gërëm leen bu baax a baax a baax fi nga xam ne nag fi laay wàccee samay kàddu rek mooy dafa mel ni kon euh, da ngeen yor ab liggéey boo xam ne da ngeen ko yoral Serigne Touba ca Gabon soxna si tam ci loolu sax laa doon ñëw mooy waa Caravane Mayumba dañoo nekk Mayumba nekkal fa murid yépp waaye tam soxna si yor ab liggéey boo xam ne ñaari liggéey yooyu mën nañ leen a tuddee Assane ak Ousseynou ay seex lañ te mooy liggéey bi mu yor ca Sarsara ak liggéey bi nga xam ne moom ngeen yor ca Mayomba mu mel ni suñu tënkee dundu sëriñ bi ci juróom-ñaar fukki at ak juróom yi mu dundu dafay mel ni fukki at rek ci la def liggéey bépp fukki at ci la am ngërëmal yàlla lépp daje te fukki at yooyu mooy juróom-ñaari ati Gabon ak ati gànnaar fukki at yooyu Sëñ Tuubaa nee na li mu bëgg lépp ci la ko am te waa Caravane Mayumba bii déplacé wu nañ ay yoon ñëw ànd ak ñun dem Sarsara dem Nouakchott jóge Nouakchott dem Sarsara nekk ak ñun ca àll ba jël seeni alal def ca jumaa ja waaye lépp loo xam ne luñ fay taxawal la alal yi waa Caravane Mayumba mi ngi ci ak seeni taxawaay ak jëmm yoo xam ne ràññee nañ leen bu baax a baax ñu teew ca barab ba kon nag nu nit suñu defee noonu day mel ni kon day bor bu ñuy fayante rek te lépp di suñu alal ndax alali Sëriñ tubaa mooy alali murid yi kon nag ñaar ñooñu faaw ñu lëkkaloo ndax e, fi ngay liggéeyee ak fi ngay fayoo diir boobu nopp lu amu fi te Sëriñ Tuubaa Gabon la liggéeyee waaye gànnaar la fayoo kon nag fa mu doon liggéeyee dem fa gëstu barab ya day yokku pëstéef ndax jàmbaar dañu koy xame ci ab toolam tool bi mu jaar bay ko ba set ba récolté ba jariñe wala mu dundale def infaax ca lam doon bay dañ cee xame ak njàmbaar kon toppi tànki sëriñ bi ci gabon day tax nga xam njàmbaaru sëriñ Tuubaa waaye toppi toppi tànki sëriñ bi ci gànnaar day tax nga xam ne yàlla du ndax kenn ku ko liggéeyal mu fay la man amila saali an fali nafsihi wa man asaa fa alayha sëñ tubaa daana wax ne kenn deful kenn dara kenn defalul kenn dara lu waay def boppam ci gàttal rek lan mooy wane ne ñaari barab yi sëñ tubaa daf leen seexale muy Gabon ak Mauritanie ci biir mbindum sëñ bi ci la ñuy gise seexale gi sëñ tubaa seexale ñaari barab yi ci ñaari bayit yu siiw yu ñëpp dajeel lu bari sëñ Tuubaa dafa wax ne bayaxtuhu fil bahri taxta zajara wal bahru musbidun wa awli fajara jaayante naa ak yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci ron garab nee na du si géej yi di ma xupp environnement bi kàccoor yi wër ma mooy gaa yu bon yi wër ma kàccoor yi wër ma loola ca Gabon la mu ne gànnaar tam daanaka rek ca mujj bayit wa la mbir yi soppeekoo ndax dane ba yaxtuhu fil barri fil barri fële dana fil bahri kon géej ga la fii mu la taxta zajara wal barru tayyibun wa awli barara nee tam même chose jaayante naa ak yàlla ak bi ca muritani nee na nag jaww ji teey lool jaww ji teey ne dégg yëngutuwul nee na nag gaa yu baax yi wër ma kon wa aw lii fajara ak wa aw lii barara fee nee na kàccoor yee ma wër yor seeni ngànnaay di ma fexeel fee na gaa yu baax yee ma wër di ma laaj ay masala ak di topp sama mbóor moo tax mu doon tudde gànnaar ardu saalihiin suufu gaa yu baax yi sunu borom subhaanahu wa taala ba mu ko liggéeyloo ca jafe-jafe ya ak tartar ya ak métit ya ak gaa yu kàccoore ya ba mu koy fay nag da yóbbu ci barab bu teey boo xam ne fekk na fa ay surafaahu yu baax yu tedd yu xam gëddaam yoo xam ne daana ñëw ci moom di moslu si ci alal waaye daana ñëw ci moom tam di wut si ay masala nga xam ne kon Cheikhul Khadim paaka ñaari boor la fépp lay dagge loolu mooy ñaari liggéey yu tedd yi nga xam ne liggéey na ko ñaari liggéey yooyu nag la sëñ Touba résumé ne li ma yàlla defal lépp mi ngi ma ko defal ci fukki at yi nga xam ne juróom-ñaari gabon la ñeenti gànnaar la yeneen yi ci des yëpp nag tubaab yi dañ doon xool nuñ dindikoo ci moom rek waaye liggéey bi jeex na ca gànnaar ginnaaw ba mu demee gabon fayo ji gànnaar dañ ko indee ci yéen jolof yooyu yëpp ay mbir la woon rek ak indi gi ñu ko indi njaareem téye ko résidence surveillée ba mu ñibbisi Touba yooyu yëpp ay mbir la waaye liggéey bi yëpp mi ngi nekk ci diggante gabon ak gànnaar suñ borom nag def ñaari barab yooyu itam bu ne ay murit nekkal fa sëñ Touba xam nga tey imaam bi toog di sëñ ma Massayer Fall barab ba nga xam ne fa lay jiite loolu rek doy na mën naa mën naa waar ku ne war naa mën a waar ku ne ci sëñ Tuubaa barab boo xam ne sëñ Saaliw da daan wax ne su ma bëggoon a jóg dem xel koom yorub gopp murit yi bañ effectivement waaye xoolal sëñ Tuubaa yor jaasi dugg ci àll bi daggal boppam ñeenti bant ñëw samp ñeenti bant ngir bëgg a julli suñuy liit muy muy nodd suñuy suñuy suñuy liit muy kàbbar wala suñuy lit muy nodd suñuy maaj muy kàbbar noonu faf ko gëdd capitaine ba ñëw ne baam ba jàkk xewu fi bul nu xatal sa jullikaay yi xaju fi quartier ga wëq ñëw tasaare jàkka ja njool màkk ñëw fa ne ko am nga maxraja maxraja mooy loo dugg duggati génn ci am na ñu bari duñ dugg luñ génn waaye sëñ Tuubaa lu mu dugg génn ci njool màkk ñëw fa ne ko am nga maxraja ci barab boobu la ko Seydina Jibril wane jumaa yi Tuubaa ak jurmaa jumaa yi njaareem sëñ Tuubaa ne nafaa li xayri fii maa yomba maasa ak xalbiya wa ahlal baa gis nga jour boobu noonu mu sampee ñu sampi jàkka ji ñu sempi ko ku ñuy wax yëlli sëy tàkkusaan ba timis day xuloo ak commandant bi nekk li nga def tegoo ko fenn ndax bant yi sëñ Tuubaa samp baarewut kenn yàqalut kenn yéenañ ci li ngeen bëgg mi ngi ci li bëgg kon da ngeen ko war na bàyyi mu julli ngeen nekk ci li ngeen nekk commandant bi ne ko fii kenn maa fi yilif te lii neexuma ñoom ñaar ñuy xuloo xuloo tàkkusaan ba timis la wax lañ xuloo tàkkusaan ba timis mat na ñaari waxtu sëñ Tuubaa moom nekkee ñoom bi ñuy xuloo mi ngi bind ak xasida ñoom ñaar bi ñuy xuloo moom mi ngi mi ngi bind ak xasida di def tawasul ci yonent bi sallallahu alayhi ngir li mu bëgg mu man koo am ngir li mu bëgg koo am xasida gi yaakaar naa ñëpp xam nañ ko gaa yi jàng nañ ko jàng mu neex ca biir xasida googee nag la sëñ Tuubaa ne la hugtub salaatan ma salaamin bi alihi wa bi ashaabihi wajal bihi masjidi rahba yow yàlla maa ngi lay ñaan ginnaaw bi yëlli sëy di xuloo ak commandant bi ci jàkka ji ma sampoon ñu sempi ko maa ngi lay ñaan yow yàlla suñ boroom mii mayee nga may ma jumaa joo xam ne kenn du ko mën a buddi sànni kenn du ko mën a sempi kenn du ko mënal dara xool xool ba rek sab xol di sedd nee na suñ borom ne ko li nga ñaan am nga ko kon ab jaam day jaar ci barab yu yu metti ba pare fàttali ko boromam subhanahu wa taala jumaa joojee nag nga xam ne suñ borom dane ko xalseen nga koo gis ci gàttal rek yelli sëy nekk na gabon ba sëñ jóge jógee ba ñëw njaareem ba tabax jumaa yi njaareem ba jumaa yi njaareem egg yelli sëy ñëw siyaar sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa woolu ci mag ñi ab lim ne leen yelli mi damaa bëgg ngeen ko won ko jumaa yi njaareem jumaa yi njaareem ñu visiteel ko jumaa ji dugg ci biir ci biti penku sow ndejoor càmmooñ yéeli nag bi muy wër jumaa ji fàtte ni ñeenti bant yee ñu sampoon tem ca doon xuloo ak commandant bi ba mu wëree wër wër wër ñëw ne sëñ bi musumaa gis jumaa ju mel ni jumaa jii mu ne ko ah waaw fàtte nga mu ne ko lan mu ne ko ba ma sampee sama ñeenti bant yi ñu sempi ko keroog laa ñaan jumaa jii jumaa jii nag am nab seex am nab seex ca penku muy jumaa yi Tuuba te joojee ñëwagul te ji waañ la ci jooja waañ comme waañ ci jooja mi ngi mel ni nga tabax kër ba kër gi pare saal bi ak waañ wi nañ mel ni la jumaayi njaaréem ak jumaayi Tuuba di mel nga xam ne keroog la ñaan soror yu guddi yi mooy nafa li xayri daaw fii maa yomba maza ak qalbiya wa ahlal jan ba moo tax sëñ Fallu yokk bu gun ba gudd mu gën a jëm kaw kon sëñ Tuubaa yàlla fay na ko kon sëñ Masayer mii jumaa ja jiite jumaa joojee rek doy na ak waar ci képp koo xamante ni bii mbirum sëñ Tuubaa yaa ngi koy topp ak di ko gëstu kon na ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu leen liggéey bu réy ba ngeen di liggéey ca yomba murit yëpp wuyu leen ba ku nekk doon dégg barab ya barab bu ne nga mën faa dem ndax barab yëpp a ngi téere yi nag waaye nag boo demee foofa da ngay gën a xam ndax man ci li ma xamee loolu mooy bi may jàng Mauritanie ak histoire Mauritanie ak ba ma demee Mauritanie damay gën a découvrir loo xamante ne bii tey dama ci am yaqinul xal bi loolu lu am solo la kon liñ liñ lay jàngal ci téere soo demee ba àgg ca barab ba gis ko dangay gën a am yaqin te barab boo dem nag sëñ tubaa fi mu jaar ni mu guddee ni mu yaatoo ni mu yàggee sëñ tubaa amul fenn tâche amul fenn gàkk mooy kenn ku wecci mbooloo yàlla nañu ko yàlla fayal kon nag sëñ xaasim suñu xol sedd na ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal karawaan bi dat bi ngeen ko jàpp yal nañ ko fekkee ñun ñëpp te yal nañ ko tal te yal nañu am tam ay koppar yuy tax ñu mën a dem delsi naal yi ngeen fa naal tam yal nañ am lu luñ ci def ba yëpp àgg naal yi ngeen naal gabon yëpp àgg ñun itam naal yenn naan sar sar yëpp àgg suñ borom mën na ko yal na ko def ci barkeb Serigne Touba te kat mbooloom Serigne Touba mi rek a koy def soxna si boo gisee muy sonn ci sar saara di fa def lu ne jumaa ji def na fa lu ne ngir bëgg rek la Serigne Touba bëggoon foofa taxaw rek loolu tam moom ngeen nekk fa ngeen nekk rek kon nag ay seex lañ yu ànd di nàmp ci sëriñ tubaa te sëriñ tubaa moom woykat ba newoon na jaboot la joo xam ne bari na am soow te amul genn gaaf ku nampe ci moom da am doole da nga xëy réyum xer kon nag nañ namp ci sëriñ tubaa rek suñ ko defee incha allahu taala li ñu bëgg lépp danañ ko am ñu ngi ñaan yàlla suñu borom mu defal nu tawféex yàlla nañ fi teewaat beneen yoon te suñu borom defal nu tawféex saxal ñu ci ngëm aku taalibe ba baa ñuy dem foofee rek wa axiru dahwaana alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Cheikh Abdou kat kàddu am na solo kat kàddu soññe la sëñ maam Mama Gueye aussi teew na fi moom it jàngkat la di wëllëre sëñ Xaasim Sarr teew na ci bis bi xanaa rek sëñ Cheikh ñun danoo ñemewul kii rek léegi bi ma génnee di wujju téléphone léegi nii sama rakk moo doon woo woote muy sëñ Akassa Samb foog naa moom it ñi njëkk dem ci caravane bi ñooñu ci la mu ne ma damaa yeex a gis bi may woo te ma nekk ndaf moo tax ma ne ko nag dañ fee taxawal ngont bi wax ko nee na ma bu soobee yàlla de moom dina ci taxawaat ren ba ñëpp xam ne taxaw na ci mu ngi leen di nuyu yéen ñëpp wax naa ko soxna maa isa moom lañ ko délégué moom lañ ko ne mu ngi leen nuyu di la ziyaare Mbàkke xanaa nu continuer rek seen Omar Ndiaye mi nga xamante ni nag sama jarbaat la di sama mag aussi lii nga xam ni may jéem a def nii moom bu nekkee gamoo moo koy def ñun duñ ko ñemee sax dañ koy may rek moom ñetti minutes ndax comme jàngkat yi ñoo ngi toog di xaar te bëgguñu mu guddee ñetti minutes sañu Omar ñëwal bu bu daaneelee ñu jox Baye Bolle Baye Bolle yëkkati ñu dugalaat ki ñuy dugal indiwaat jàngkat noonu lañ koy defe rek ba mbir mi jeex sëñ Omar bisimilah moom it jóge ci délégation bi nekk Gabon sëñ Omar Ndiaye alamdu wa sukuru ma andilaay ala nabi wala di abdallaay alamdu wa sukuru ma andilaay ala nabi wala di abdallaay wal baladu tayyibu yaxruju nabaatoo biizni rabbi wajjahtu kulli lil wadudi samadi saa xidmatin lil mustapha muhammadi alhamdu wa sukru ma andillahi ala nabii waladi abdallahi lillahi bi sikril akimi an xalib ma nabi walad abdul muttalib badada lii sam la aduwul asimi rabbi bi jaay mustafa ibnu asimi li jaada rabbi bi nawaali xat ana bil mustafa muxtaari min abdil munaaf duwaay istijaaba bil mafi rabbiya bil muxtaari min xusayi aslim loo naylal muna bila silab wala xuroon bi nabi ibnu kilab liitu bi xayri wax fi nii madara rabbi bi jaay Mustafa ibnu murra tey fu aadee bi raw di saabi bi abal Mustafa ibnu kaab yallaahu yaasal arsi wal kursiyi salli bi taslimin alal luwayi yallaahu yaasal arsi wal kursiyi salli bi taslimin alal luwayi يا رب اسق جملة المثالب بلا حساب بنبي ابن خالب بدر سقري كل سهري وكل يوم بنبي ابن فهري يا خير الناصرين وخير مالكه انصر ومالك نبي ابن مالك حبيتي وأساتي وندري كونك لي فليعقب بندري ردي دعوة جدانا بالمصطفى مختار من كنانا جدلي بما بي أنير خيمة وخيرها بمن أداء سيمه نادي جناب من جواهر موسيقى والمصطفى بالمصطفى من مدركة بري لهما في القياس بمن جعلته ديال الإلياس انصر جناب إن سيري والغدر ولك قرن بجاي ابن مدر تفضلا عليه ربي أن أسر فيك وفي خير الورى نور النسر أديتني يا خير هادي قد وحد أنجزت لي وحدة بأفضل المات وأعطى لي فضلا إلى الجنان يرفع النبي أدناني barakata sadiq wal faarooxi jàmmeetañ mag mooy wal ma foox akrama rabbi asisa nooray nii wa walida si tey ni fi daaray ni sabet sahabatu nabil asqiya alayhimu ridwaanu musal asqiya nafa layin man loo ay soomu maal ida fa ju ndaw max soomu rafa allul badri islaama wa sada fu jaara wa salaama baabi maa yasoro wal xannaasu wa soro man loo ana xannaasu bala lana tawhid wal fiqhu ma tasawufin bima idanahama addiyati laayi wadi wadi samadi bi nabi muhammadi subhana rabbika rabbil izzati ama yasifuna wa salaamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin barke borom tuba mbooloo mi ginnaaw bi nu sante yàlla jullu ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa di sant lool di gërëm lool sunu yaakaar yi tey ëllëg Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi tax ñu tal ko di ñaan kii nga xamante ni muy sang bu tedd te nekkal ko fi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool ci wér ci barke sëñ Touba noonu la ñuy ñaanale itam nag sëñ Amdi mu Cheikh Modou Mbenda Fall moom it di xalifa maam Cheikh Rafal yàgg fi lool te wér noonu lañ koy defe cheikh yi sëriñ tubaay yëpp ki leen fi teewal ci jamono actuellement suñu boroom dogal yàggal leen fi lool te wér te liggéey ba ñuy liggéeyal seen maam wala itam seen waajur wu góor yàlla dogal ñu yàggale ko ci jàmm ak salaam kon li waral daje bi yëpp bokki taalibe yi wax nañu ko li ko dara ci jëwriñ ji sëñ Cheikh Mbeng sama jarbaat wala itam nag sama ndijaay annoncé ko muy sëriñ As Mbeng noonu rek lañuy daal noonu rek la mbir mi tëdde ñu sant sunu borom nag mi dogal nu ñëw ba senegaal ci fii nga xamante ni mooy karawaanu Mayomba ñi féete Sénégal di ko doxal bokk na ca soxna Batóor mook borom këram yépp waaye nag sunu kilifa sunu sëriñ di soxna maa isa mbàkke yàlla ko fi sunu borom yàggal ca mu wér lool nu jël am nuyoo jëmale ci waa kër Seex Ahmadou Bamba soxna yëpp di ko jaarale ci soxna maam isa liggéeyam bu rafet bii ak yéeneem ju rafet ji nga xamante ni mboolem kuy euh, yëngu ci murit ci yoonu murit ak kilifa yëpp yëg nu ko ngir jëmmi sëñ tubaa yàlla na nga ko yeggale Mbàkke te na nga ko soobe ak na nga ko bëgg ci barke Cheikhul Khadim su ko defee ñu sant sëriñ waa kuréel bi yëpp ndax lii nga xam ni moom la ñuy def te sunu jàmbaar ja sunu kilifa gu tedd ga initié ko door ko àndan koog ñun ba wuñu ko jóge fi bàyyi koog ñun xamal ni ne sëñ Fallou Bousso liggéeyab sëñ Touba la ku ci jàpp am ngërëmul sëñ Touba tey ji ak ëllëgën jëm kooku mooy Cheikh du Fallou Bousso yàlla na ko yàlla fayal yàlla na ko yàlla xar àjjana ci barke Cheikhul Khadim moo soxnaam su tedd da maam jaara Bousso mu soxna may mu Cheikh Amadou Fallou ñoom ñoo ngi leen di ñaanal suñu borom ndax liggéey bii tey ñoo ko door ànd nañ koog ñun yàlla dogal nu jóge fi jox nu ci ndigal jële ndigal la ci kilifa ga ni leen liggéey sëñ tubaa la ku ci ànd te nekk ci liggéey bi di nga am ngërëmu sëñ tubaa kon nag ñun fas yéene nañ caan ànd ak mbokk mboolem taalibe yëpp kon ni ko sëñ Cheikh Mbeng waxee liggéey sëñ tubaa nag moo nu tax a jóg du question wut ci am koom walla sàkku ci lenn ngërëmu sëñ tubaa daal lañ ci sàkku bëgg koo ànd ak murit yëpp ngir jëmmi sëñ tubaa am ci ngërëm sëñ tubaa fa sëñ tubaa doon liggéeyee daal ñu fexe ba mu am daara yi sëñ tubaa am école am jumaa ca yomba ndax ndax foofa day ba fa sëñ tubaa nekkee di liggéeyal borom wéetal na fa lool wax dëgg yàlla maa yomba ak capitalu Gabon daanaka dem na junniy kilomètre ñu yóbbu fa Serigne Touba mu def fa juróomeet kon sunu jàmbaar jooju yàlla na ko yàlla fayal moom lañ fas yéene ànd ak ñëpp sëñ aas ñoo ngi sant bu baax di ñaan yàlla yàlla na ko teewe ay déwén yu bare bare di nuyu tam nag sama mbokki jàngkat yi yow li la dal moo ma dal ndax man jàngkat mooy sanu lépp man sëñ Ablaye Ñang jàngkat moo ma toqi barke borom Tuubaa mboolem jàngkat ya mu maaseel yëpp daan ko jàngandoo kenn ku ci nekk tax toog na ma yow jataay ñuy liggéeya liggéey liggéey sëñ kon jàngkat moom ñoo ngi nuyu ñëpp ku lim juum wala ñi fi nekk ñëpp buñ ko dalee ci sëñ Alaaji wala kam ci sëñ Bolle bu ko defee itam nag nga yóbbaale ñëpp ñoo ngi nuyu jàngkat yëpp Cheikh Abdoulaye ñoo ngi siyaar baax waxtaan wi neex na ñoo ngi siyaar ñëpp waa gab sim saar eh, yal na yàlla guddal fanam ca wéral ko moom yaram ak tegginam may na ko lu baax lu ne barke borom Tuubaa am na yar am na teggin am na pësiyëf ngir liggéey sëñ Tuubaa daanaka bokk na ci ña nga xamante ne ñoo mujj ñëw Gabon am na ñeneen ñu ko fa fekk si waaye pësiyëfam ci liggéey bii ni liggéeyal sëñ Tuubaa dégg na dayo barke borom Tuubaa yàlla na yàlla def ko muy mag ca fayal ko yéeneem ca yeggaleel nu ko ñu ànd liggéey sëñ Tuubaa ba am ndam yàlla na nu am ndam yàlla na nu am ngërëmul sëñ tubaa